asalaamaaleykum euh, sëñ Moustapha gis naa la nga tiim ay këyit nii ma bëggoon nga wax ma ci li nga tiim lan la ak euh, lu ci nekk. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi bokk taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant kenn ku nekk ci dayoo ba nga toll. waaw li nga wax nag euh, dëgg la ñu ngi tiim ay këyit def ci ay not not yi nag lépp it. ñu ngi ci def rek ay histoire yoo xamee ne que ni jaadu na tey foo ay toll nga xam ko muy histoire bi ci jëkk mooy aw sant ak ab dëkk muy loo maanaam loo xam nga sant la ci Sénégal te yaatu na waaye am na cosaan waaye njàmbur it dëkk bi ñuy wax Louga it am na cosaan ana Louga. dafa Sénégal dafa juddu rek Louga juddu wala Sénégal dafa juddu après Louga ñëw loolu c'est très important loolu ci lañ bëgg ñëw leeral ci tuuti loo xam ne danañ ko mën a baaxee ñi nga xam ne ñoom ñoo ñuy suivre di ñu seetaan noonu nga ko waxee ni la demee dafa amoon benn naaru gànnaar bu tuddoon Saamaan ibnu Suufi ne ko naaru gànnaar bu am xam-xam yàlla dogal mu jóge gànnaar ñëw Sénégal bi mu ñëwee Sénégal nag euh, déggul ay wolof ñim fi fekki digguñu ay naar jafe-jafe tàmbali juddu foofu ndax kenn diggantuwul ceeg sa morom naar boobu Saamaan ibnu Suufi mi ngi yoroon benn ëllëwa ci loxoom muy ëllëwa yi ñuy jàngalee bi mu ko yoree nag bi mu ñëwee ñuy wax ak moom euh, di liyaar bi ni liyaar nag xelam dem ci ëllëwa ji mu yor yaakaar na dañ na ko lii nga yor ci sa loxo lu doon mu daal di sëgg bind ci suuf lawhu laam waaw xaa muy lawhu wax leen ne lawhu laa yooyu ak ni ñuy bindeloo benn la moo tax mu indi sant woo waaye fekkoon na fa benn buur bu ñuy wax ma jàmbal de ma jàmbal diiwan faal mu nekkoon yilifoon kajoor waaye bi mu fa defee ñetti at moom saamaan moomu jafe-jafe tàmbalee jur juddu diggam ak buur boobu di ma jàmbal ndax buur bi moo yilif kajoor waaye saamaan ab ñaankat la gis nañ ne nit ñaa ngi jóge bawal di jóge kajoor fenn fu nekk ñu ñëw di ko fa ñaanloo waaye bi nga xamee ne nag suñu borom dogal na nag fii raa nga tàmbali dox diggam ak ma jambal suñu borom dogal nag am ñu dem ca damel ne ko ah, ah, ma jambal moomee sëriñ bii nga fi bàyyi ñetti at yi kajoor fenn fu nekk nit a nga fi jóge ñëw di ko ñaanloo soo ko fi bàyyee mu nekk fi bu yàggee dana nangu gox bii loola nag tax ki nga xam ne mooy ma jambal daa di rey saamaan ibnu suufi moomee bi mu ko reyee nag sàkkal ko pexe saamaan amoon na ñaari doom yu mu àndaloon indi indaale woon ko fi muy ku ñuy wax walik ak wali muy benn doom bu góor ak benn doom bu jigéen ba ma jambal reyee euh, saamaan moomee dafa jël doom ju jigéeni saamaan ja daal di koy takk def ko soxna yeesalaat ko def ko soxna ba mu ñëwee def ko soxna it am nañ ci jenn doom ju ñuy wax laman décceef njóogu lañ laman décceef njóogu lañ ci am mi jur amari euh, sabel amari sabel bi ngay dégg laman décceef njóogu moomu moo ko jur mu nekk sët nag ci buur boobu nga xam ne moo fi nekkoon doom ju góor ja nga xam ne euh, moo ca des euh, buur bi da ko jël delloo ko gànnaar ba mu ko yóbboo gànnaar nag mu nekk fa ba màgge fa ba takk fa soxna ba mu fa takkee soxna nag am na ca ay doom yu bari am na ca ay doom yu bari waaye benn doom dong nag lañ ci mën a jël rek pour wax leen histoire bi ni mu demee rapidement benn doom di ñuy wax ndis mi la ca am ndis mi am na yeneen ay mag ak i rak waaye ndis mi moomee nag moom moo fa des ca gànnaar daal di fay takk soxna ba am fa njaboot ndis mi daal di ñëw Sénégal bi ndis mi ñëwee Sénégal suñu boroom dogal mu nekk fi ba xaw fee def ab diir waaye ndis mi moomee amoon na doom ju ñuy wax Babacar Lo kon Babacar Lo sët la ci Walid mii ndax Walid moo jël moo jur ndis mi nduus mi nag bi mu dem bi nga xamee ne léegi eh, dem na gànnaar ba takk fa soxna ba am ca doom ju ñuy wax Babacar laata Babacar di fer ndis mi moom jóge na gànnaar ba ñëw senegal bi mu ñëwee senegal it ba Babacar màgg laajte baayam ñu ne ko sa baay de biir bi nga xamee ne que nii eh, juddu ga bi nga daataan fer la fi jóge léegi nag dem na Sénégal Babacar daal di ñëw Sénégal bi mu ñëwee senegal ñaanal góor gu ñuy gu sant Guèye mu may ko doomam ju ñuy wax Issa Guèye mu daal cee am doom ju ñuy wax. maxta ñu mu am mu am ca doom ji ñuy wax daam garaxati daam garaxati moomee dëkkam bi nga xam ne moo nekk fële ci kajoor at mu jot foofu la ñuy def ak màggal daam garaxati moomee nag bi nga xamee ne dem na ba suñu borom dogal moom tamit mu dem gànnaar di fa jàngi ji ba mu demee ba jàng fa moom ñu may ko fa soxna suñuy wax soxna faatimatu aydara soxna faatimatu aydara la fa la la la fa takk am ca ñetti doom maxtaarum daam omarum daam ak bintu moom la fa am maxtaaru daam ak omaru daam nag ñoom ñaar dañoo ñibbi si senegal bintu moo des gànnaar omoru daam ak maxtaaru daam nag bi ñu dikkee Sénégal ànd ak seeni taalibe ak seeni bagages biñ dikkee Louga lañ wàcc booba Louga as soxna moo fa nekkoon ku ñëw as soxna boo demee yaakaar naa ne yéen ñi ko miin da ngeen fa gis quartier bu tudd soxna as waaw ah, coxna mi ngo ba ndikkee nag ñoom ñaar ñu nekk fa nekk ay mag ak rak maxtaar daam daa di wax omarum daam ne ko damaa bëgg kon yow nga des fii man bàyyi ma ma dem seeti suñu dëkku cosaan na sama bàyyi yilifoon sama maam su ko defee bu fekkee gent na ma man koo dekkal defaraat ko su ko defee ñu doo faa mën a dem toxuñ mu daal di bàyyi Omar daam mii Louga ak bagage ya ak euh, taalibe ne ko nag bagage yi diis lañ te taalibe yi euh, sonn nañ ba fa Omar fanaanee ba bët set yàlla ji taw fa taw bu mettee méttee waa Louga daal ne ah sërif bi jaar fii bagage am ji de xam naa ni su fekkee taw bii ci bitti la ko fekk sonn na lool kon nañ dem seet ko bañ demee fekk mu rëdd aw rëdd taalibe yi ak bagage nekk te biir dara tooyu ci waa Louga na ko yow nag doo mën a demee nii yow yow moom doo man a demee nii daal koy wutal ay ay tool biñ ko wutalee ay tool nag daal koy wutal barab bu muy jàngalee te loolu la sëriñ diwul ñu may ko soxna suñu wax Awa Sarr mu daal di tàmbalee bay di liggéey ba maxtaar mi bàyyi woon ko dem di seeti seen dëkku cosaan ba dem ba toll ci ñetti at mu dellusiwaat nag ci Omar nag ne dëkk ba sancaat naa ko defar naa ko kon nag léegi nan dem ma toxal la yóbbu la fa ñu dem fa mu ne ko fii kat mënatuma fi jóge ndax ji nañ ma fi teraanga lug naa fi lug joojee moo indi tura turu Louga ci Omar daam la cosaanoo waaye mbër gu balee ñaan nag mbër gu balee ñaan moo indi turu Louga bi ndax ba fi mbër gu balee ñaan nekkee ba suñu borom dogal commandant bi ñëw di lotissé dëkk ba bañ ko fa fekkee la ne leen damaa bëgg ngeen bàyyi ma ma barkeeloo fii dama bëgg ngeen bàyyi ma barkeeloo fii ndax sama maama fi dëkkoon ndax lug naa fi ba pare moo tax ñu naan lugaloo kër mbër gu bala ñan kon euh, turu Louga bi leer na. tegal sa baaraam foofu. waaw dem te ñëw. Mhm.